mbokki amateur yi jërëjëf mbokki internet yi ginnaaw bi ñu ànd ak yéen démb dund journée lamb bu neex doxoon ci diggante Gris ak Pakala tey ñu ngi fi ak PAB Events ànd ak prince sunu xarit prince Talibé Cheikh Abdou Karim gis ngeen ci combat bu mag bi tey war a ci diggante Reug Reug ak Jordan danañu ànd ak yéen lépp lu rus ci combat bu ko ne bu neexee yàlla du leen ëmb fépp fu ngeen mën a à travers les cinq continents kon ñu ànd ak yéen ci senego Ngiraan numéro 2 Fede Sène càmmuñ melax Fede Sène la abli sible na melax nag di doom ci Mohamed Ali le grand champion ñaari xale yooyu ngi ah melax cokaas na daje nañu jeex na jeex na jeex na melax daan na Cheikh Ngiraan xale bi am na talent xale bi am na talent ah wax dëgg yàlla lu juddoo cib tàgg bu ndaw lay jaaxali bokkam melax melax na ci kaw Cheikh Ngiraan melax. malax na ci kaw Cheikh ngi daal ay presse boole leen tey ci bésam bi tey mën nañu xam tey ba yëgee ngeen am ci bés waaw kontaan nañ ci trop kontaan nañ ci dans la mesure où xew la na bésam bu mag bàyyi fi ñëpp choisir Dakar ak ci ne ko moom lay tuddee drapeau bi muy wane ni peut-être li ñuy liggéey moom reconnaître na ko et xam na ni peut-être ñi ngi ñi ngi participer un peu ci développement réew mi mu jël bésam bu mag a mag tuddee ñu ko loolu lu rëy ci ñ lu rëy la et ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant di ko ñaanal aussi li muy wut ci làmb yëpp yàlla dimbali ko ci ba am ko ci. jërëjëf boole leen ci bés bu toll nii. bés bi ñoo ko bokk ñoo bokk liggéey bi ñoo ko bokk ñun ak yéen ñëpp benn lañu lii lii euh, drapeau presse bi yëpp la presse en ligne ñun ñoo ko bokk te rafet la aussi seen teewaay ci bës bi ndax euh, ñëw ngeen béy seen waar mais dañ lañ wax rek ni kontaan nañu vraiment te bu doon suñu sago euh, drapeau bi daal daanaka est-ce que sax waa Sénégal duñ ko joxe benn yoon. Prince tey nga réussir waat exploit mooy tëgg jox ñu tey bés bu rëy bi maanaam à part bés bi Prince la moo ne sunu kanam. sant yàlla julli si yonente bi sant samay waajur sant Sénégal yëpp sant njaboot Serigne Touba gépp teg ko su loxo sëñ yàlla la def rek suñ si jógee incha ñuy baalu ñëpp ak baal ñëpp jëm weeru koor suñ fa jógee incha allah lendemain korite ñu dem. Kaolack. Korité koo tëgg. Ahmed Deme ak Bruce Lee. Ahmed Deme Bruce Lee. waaw drapeau lay doon incha allah ñu siy woo ñëpp. ñaari mbër yaa ngi jàkkaarloo arbitre yaa ngi joxe dernière consigne Malick <laughs> ay Sénégal <laughs> ki ko mën a koy du benn Malick. laay laay la rëg-rëg a noonu. arbitre acca Reug Reug nee na nañu jox maa ndam wayal ko arbitre joxe na signal yi Reug Reug Jordan Reug Reug boja mari jaral na ma ko paajam Reug Reug nga koy gëdd Jordan ci xeex bi lay mise Jordan ci xeex bi lay mise xam na ni rëg rëg rëg mooy mbapat jor na ngi door rëg rëg ngi méb rek gis ni mu lay gëddee boo janaxee rek boo janaxee du baax joral joral door na waa rëg rëg ngi taxaw rek daje nañu daje nañu jë rëg rëg tuuti ñu la tuuti ñu la jor na nag rëg rëg ku ci uppaajam raag wala combat cooki wala komba ayca jox rëg rëg tak rëg rëg sol na ko da koy dëbb naax jeex na rëg rëg joron joron na ba diis joron rasu na joron a ngi rasu xam na ne rëg rëg mbapat la bëgg xam na ne rëg rëg mbapat la bëgg añ ne ko añ na ko <laughs> ngi door pour mu bàyyi Joro ngi door pour mu génn attention ah déedéet mënoo koo plaqué xam na yoonu bëre Joro na Reug Reug drapeau Dakaractu ay ca FAB event prince li lan la déggal ma ngi nepp <laughs> ayca léegi mu sotti Joro na ngi rasu wax na dëgg Reug Reug daa bëgg liggéey waaye xañ bi ko joroon xañ moo xaw a compliqué bëre bi tuuti joroon tee na Jordan mat mot ma sottiwul ñaari xale yaa ngi bëri lu rëy <laughs> ñu ngi bëri lu am importance ñu ngi bëri lu tegu ci yoon ñu ngi bëri lu tegu ci temps Reug Reug Jordan arbitre atte lu tax Jordan nee ko lu ma def Joro nee na arbitre déet laaj ndox arbitre nee na ko <laughs> ah. lu muy gaas Jordan lu mu sentir ñu ngi tekki galaat yi xaalis yàqu na xaalis yàqu na bu lu tax loolu arbitre lu tax loolu mu àndaloon jox na leen li mu yor Jordan am na droit li mu yor ñi mu àndal Reug Reug a ngi bañal tu rek waaw gis ngeen déedéet déedéet bu dee nangul nañ ko dañ ko war a nangul. ngi bañantu Reug Reug Jordan lu muy kaas lamb ju xaw am pression laamu ji pression la jaroon protestant bi moo wadd mu doon laaj ndox ni ko am na ci trois laamu ju bari pression la Reug Reug stade bi supporters yëpp a ngi jug taxaw Jordan bëreel Jordan Reug Reug arbitre sifflé waat na ku ciy uppaajam moromam Jordan ñam na Jordan déplacement yi la bëgg bëre ak xeex bi wax na dëgg Jordan Reug Reug Reug Reug fayu na Jordan dóoraat na dajawaat nañu jeex na jeex na Reug Reug uppaa jam na ko jeex na uppaa jam na ko lu muy kaas Jordan lu muy kaas Malick uppaa jam na ko at nañu jeex na jeex na Reug Reug uppaa jam na ko jeex na uppaa jam na ko arbitre bi ma maa ngi bëri may ma jàmm topp ma taxaw ma ne ko taxaw naa mun na ma ay rek bëreel de sifflé ba xaaral jàpp naa fu wóor ba mu leen jël war na mu atte ñu naajul naajaanu lay atte lu muy atte ma tey fu baax muy la non ne nga la bokk yow Modou may xoolal xam nga xam nga xam nga am naa lu ma metti nag am naa lu ma metti entraînement bay bëgg a dee moom moom sama laa ah, wax ñoom si biir bëri di leen def nii arbitre nangu nii maa ngi gis mais waxuma mais gëmu woon loolu dama ko dégg chaque jour mais tey laa gëm mënuma jàpp si ngeen bu baax xar ba téye ko bu wër ba ma jàpp mu dem mu àtte ba loolu mu ne ma non kaay la ngeen bëriwaat loolu la arbitre bi biñ ko nee lu tax mu arrêté lu mu la yaa ma gis maa ngi yuuxu waxul dara ba taxaw di ma xool naa kaay bëre mais pour la ba ma bëre ba ma bëre jàpp naa fu wër la ma bëre uh-huh. liñ soxor la quoi man bàyyi naa bëre Modou Mbaye nee na dafa jàpp arbitre sifflé bi arbitre sifflé ñëpp a jaaxle li moo tax arbitre sifflé waaye arbitre bi ne ko du dara ñëwal nga bëre tey pour la deuxième deuxième fois arbitre yi est-ce que jotul ñu xoolaat aussi jotul aussi ñu xoolaat arbitre yi aussi li ñu liggéey li mu doon lamb ji commencé na bari coow ci ay erreur arbitrage te lamb ji defe naa ni mbëri yee ko seq arbitre yi ak amateurs yi ak ñuy wax donc le docteur Alioune Sarr ñu ngi lay interpeller aussi ñu xoolaat règlement yi parce que li mu jàpp moom dañuy favoriser Reug Reug ci kawam waaye lamb rek dañu koy waxtaanee ak wut ay solution ba keroog ñuy defar Wassare Lamb lii la ñuy indiloon tey ci stadium Iba Mar Diop ak PAB event ci diggante ak ki nga xam ne moom